aadama yi nag jamono ji soxal na bu baax kii di président Macky Sall démb ca rentrée solennelle bu cour des tribunaux ca la xam leen nag lu jëm ci wàllu vie privée nag dafa doon lu am solo ak jamono ji nag àdduna bi ni muy doxee ci lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi nag mbir yi dafa gën a menacé wu loolee nag faaw ñu jël ci ay matukaay leneen loo xam ne rek juróom-ñetti candidat yi nag soobu nañ ci fas yéene cee dugal seen loxo doxal ci Sud Quotidien bokk na ci application recommandation de la commission de réforme des institutions yéenekaay bi ne bokk na ci Cheikh Tidiane Dièye Gueye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo Serigne Mboup Bassirou Diomaye Faye Boun Abdallah Dionne Rose Wardini Khalifa Ababacar Sall yéenekaay bi ne ci ñaar fukki candidat yi nga xam ne rek conseil constitutionnel tànn na leen ngir ñu daal di samp seen nënd ci élection présidentielle yi juróom-ñetti képp ñoo ci joxee gum seen kàddu lu jëm sax ci élection présidentielle yi yéenekaay bii di Vox Populi nag ma ngay xam ne ni moom président Macky Sall àndul benn yoon nag ci lu jëm ci tuxal gi ñuy laam-laamee léegi ci bi nag moom njiitu réew mi campagne électorale bi nga xam ne rek war nañ caa soobu ñeel élection yu 25 février atum 2024 ma ngay yëgle nag moom njiitu réew mi ne ci jàmm ak dal lañ ko fas yéenee amal ca noonee sax nag ma ngay woo candidat yi ñu rëkkale ngir ñu daal di muñ te tënku nag ci li nga xam ne moom la suñu constitution yi daal di dogal jëm ca ñoom 24 heures ne Macky Sall kay ma ngay tontu candidat yi nag ginnaaw bi ñu saytoo parrainage yi nag ba rëkkale leen ca conseil constitutionnel dogal gi nga xam ne rek moo fa tukkee ma ngay sàkku daal di sàmmonte ak loola ndax amul benn yoon boo xam ne rek mën nañ caa jaar ngir amal ay recours ci yéenekaay bi ma ngay xam ne nag ne conseil constitutionnel joxe na list définitive bi ñeel candidat yi war a dem ci yële élection kon nag dafay des ci pouvoir publique bi ak képp koo xam ne rek kilifa nga ci wàllu administration bi nga daal di tënku ci lu nu mel bés bi le jour dippee ko nag les somnifères de Macky ginnaaw rek ndaje mi nga xam ne doxoon na ci digganteem ak ñii di ko jéggi yéenekaay bi jàpp ne nag moom président Macky Sall ma ngay jéem a nelawal nag ñiy faree ci ko jéggi ba tey muy dellu siwaat nag ci communiqué bi nga xam ne rek na ci présidence ne ab kurpañ bu dal ci kaw ñii di rëkkale yi président Macky Sall tey jii la convoqué ab conférence boo xam ne rek da koy séq ak leader yu Benno Bokk Yaakaar enquête quotidien dellu siwaat ci ubbiteb enquête parlementaire bi waa parti démocratique sénégale bëgg amal ci assemblée nationale yéene kaay bi ne waa PDS nag li ñu bëgg jamono jii mooy am ndam nag ci kaw waa conseil constitutionnel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jàppal tànk kii di Amadou Ba la ñu gis rek bokk na ci jamono ji dafa am ñu nekk ci ginnaaw parti démocratique sénégalais ngir bëgg indi ay sabotage ci wàllum élection élection yi lu soxal élection présidentielle yooyee sax nag ca la ñuy desandi réew mi quotidien di dellu siwaat nag ci Ousmane Sonko mi nga xam ne ma ngay nettaliwaat nag ab jaar-jaaram jëm ci am ba ci campagne électorale bi enquête dellu siwaat ci ab vidéo boo xam ne rek moom Ousmane Sonko fësal na ko di xam ne nag ne dinañu fësal ci lu yàggul dara candidat yi nga xam ne rek ñoo fas yéenee doxal moo xam benn lay doon ñaar ba ñett waaye nag li ñu bëgg rek mooy am ndam ngonuk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février tàggat yaram ca la